Chers téléspectateurs, veuillez abonner sur WAF Production, Fashion Photographie, votre label de production. N'oubliez pas, veuillez aimer, partager nos vidéos et surtout appuyer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Look maa neex ci xool la ba ndugg neex bëggee la bari doole lu mante xew noo mën a mel foo mën a ne xool bi yow la bëgg mahol Mama don't join na If not, Why you falling woman

je bu baax la jigen la tamit bo xamantene man la dama ko naw ci ay qualité té yow lool kenn du la wax parce que yow ya ko gëna xam ñëpp en fait euh, comprendre quoi parce que jigen bu cool la dafa rafet amna lu jigen wara am yëpp amna mais pourquoi mom mu lay demander ay wax yoyu doon yow ngay am leneen lo ci xalaat yow

yo sa meilleure amie man je te fais comprendre que man ak Sali ci aduna mënul nekk c'est impossible. loy wax ni yow it yaa ngi xalaat loolu su mënul nek lan moy mën nek nekk yow tu te rends pas compte avec entreprise bi yow lu nga xamné ne Sali yëpp wara doxal légui lan moy problème bi lolu mo gënoon yombal mbiri mais yow instant bi da nga melni ko xamantene benen ne genre jibril man am xam nga amna yo xamantene mu bëgguma fa yegg ak yow sumay wax ak yow ci xel mu dama bëgg nga dégg ma en fait yow

beneen phase bu rafet. ah jaaral fii. maa la ko assuré. nee naa la boo fi boo fi jógee di nga ñëwaat. waaw ana patron bi moom nag. patron bi dafa génn nag. Mm. mais vraiment ku baax la. Mm. ndeysaan ku baax la parce que dafa wàcce boppam ak ay élèves am. Ah, loolu mu nekk nit ku baax. vraiment dañ koy ñaanal yàlla rek. ki ne moom macha allah. macha allah zéro faute patron bu mel ni yombul de. Hmm. waaw. moom maa am na jëkkër. non pas encore nag amagul jëkkër waaye nag hee ñu koy topp ak a bëri. Ah ay borom xaalis ñoo koy topp. macha allah moo tax feeñ na sax si sa moom bi sa moom bi dafa rafet. ah gis nga de borom bi barke rek ñoo koy topp. parce que moom instant bi ne xamul ci li muy def dara bëgg rek la topp di ko def du topp bëgg-bëggam mais yow pourquoi pas doo ko jàppale ngay xalaat leneen lan moo tax mënul nekk. c'est ma belle li wax nii yëpp c'est bien beau. C'est la triste réalité, d'accord. Mais avril, c'est une question d'aimer, question de bugler. Je te parle d'amour, quoi, bugler, quoi, là, là. Mais là, moi, t'as veux pas Sali. Là, moi, veux que loolu la bëgg a xam man te xaw ma Sali dis-moi s'il te plaît. Sali jigéen bu baax la jigéen bu respectable la ku ma naw la mais en tant que sœur. alors mel les dingues ne a même ween bu ngeen nàmp wala genre. attends léegi je te fais une brève yi Sali li mu yëg ci man man loolu laa yëg ci Kiné.

fépp mu nekk dinaa ko fa fekk il faut de moi xamuloo tax lu bëri affaire yaa ngi doon sérieux laa moom dafa am keneen koo xamante ne moom lay bëgg non c'est impossible non. surtout nag Jibril non Jibril ni mu bëggee Kiné gisuma kenn ku ko bëggee Kiné. surtout Jibril. kuy Jibril ki nga xam ne mooy faj buumu gàcce yi macha allah topp ki ne dar ko ni dar man dara waaye ki ne xool ko loolu ma ci metti waaw defal nii ñu continuer léegi. ay bàyyi sama dëkk kuy ki ne. ça va dama xam. ça bien. kii est-ce que ça kii de day toog fii di léttu may wax ci yow après ma a Jibril day topp ki ne rek. mu arrêté les tii. defuloo ko dara lo? kese la. non yow tamit kii ne danga maa xamee yooyu fii xam nga ne salon bi ku fi ñëw jàmm ak salaat mais kii est-ce que amul rab. genre yi dañuy ëpp rab de. ah doy na waay man de sama temps ngay jema def effort nee na jigéen la te yow yaa ko mën a te bëgg na la jigen bu la bëgg jamono ji dafa jafé kon ko am nga lol nak jëm ko jàppale. Ah, keroog mu kontaan na mo mhm. japp nga ci dé <laughs> léegi suma deful non dumay def. yow dal suma way nga dal avec ah, bref mais yow dama dama la soxla won ah. dila xaar pour nga ñëw. mbay mhm. sa gémmiñ xassawon sa dom nday mo la kay wax. soxla woon naa la fan yii yëpp pour ñu wax mais problème bi nga amoon moo taxoon ma jël loolu yëpp teg na le pour xaar ba nga pare may doog a waxtaan ak yow. Mhm. Mbaye mhm. dëgg la jàmbaar nga mais yow li ngay fayeeku moom loolu laay fayeeku Mbaye ëppale woo ma mbay pour pourquoi sa gàlle mënoo fa def te yow gis nga li may def man sama gàlle soo ma fekkee sama gàlle nga xam ne kii Baye Fall la. man lijjantiwuma dara lépp lu ma am sama gaal sa mag yi paate nag moo yoroon seen kër yàlla def na mënatul yow yaa ko uutu yaa ko uutu la ñuy wax sax yaa ko uutu kon yow yaay jéem a defar seen kër defal ko mu mais xale yow yéen fois si mën ngeen di waxtaanee si man rek mais kër ga maa ngi def li ma mën maa ngi def lépp lu ma mën ci kër gi dépassement facture fay courant fay ndox fay. mbay yuux dàq na picc waaye dugub loolu laa bëggoon nga xam. mais xarit yéen waa commune chaque jour yéen si man ñoo wax xanaa sonal leen ci wax bi bëri bi. voilà euh, euh, Djibril. ah Euh. ah Jibril mu ngi nii afaam yi borom baax la kii ku ko gën amul si àdduna ana ni moo tax mu wóolu ko tey si biir kër bi pour mu ñëw ngeen waxtaan afaam yi parce que am na yoo xam ne daf ma koy defaral sax te yow doo ko yëg yow parce que bee passé jëndal ma jëndal na ma frigo frigo jëndal na ma ko fi ma banque rek ma dégg feeraay feeraay ma jaay frigo bi te frigo bu bees la ah te kii

sama papa nga gën ci xaalis mais du man la bëgg. non mais vraiment je te comprends plus Kiné man gis effort yi may def mel ni la chaque jour mbay mbay mbay mbay rek mais mën koy def déjà kër gi def banque bi kër gi la ngi mais gars ah ne da laa sonn. non nañ changé débat nekk ci leneen. ko après dinañ waxtaanaat man ak yow comme que wax ji dalay sonal amul problème nañ dem mais tamit beneen mooy yaa ngi wax Pathé liggéey bi mu liggéey ay jamono mais tamit Pathé tamit moom tamit liggéeyul toog ci kër gi rek la nekkee mais xale man maa yow huit heures dem xëy bala maa ñëw dina neuf heures vingt heures sonn laay def day taxawaalu ba ba guddi jot mu ñëw fekk fa añam reeram ndikkeem lépp fa la koy fekk mbay Pathé sa grand frère la ak nu mu mënti mel sa mag la sa kilifa la te seen kër bi ngay wax moom moo ko yoroon ndog-ndog nag moo ko dal ba lii tey mënatul dara mu toog du ma ni mënatul dara sax ndax mi ngi jéem mais yow yaa ko war a jàppale. mais Khalil xool lu may def si kër gi nu mu bëri dama am naa droit takk jabar yóbbu sama yaay maaka ndax sama yaay moo tax may ñafe de. di liggéey mais pas ay pâté yi nii non non non non sama yaay li mu nekk ci kër gi moo tax may ñafe di liggéey pour indi ci kër gi mais waa kër gi xamuñu loolu waa koñ bi mbay rek la ñuy waxtaanee fu ma gën ñu ne mbay mais mbay dafa sonn. mbay baax na léegi li ma la wax soo demee na ci xalaat bu baax. ah ah mooy dëgg gi ngay bañ maa la koy wax nag heure bu ñu toogee dama la koy wax. te bu àndee daal i dem la kër gi rek. Ah, heure bu ñu àndee dama lay wax dëgg ji dëgg ji ngay bañ ma wax la ko saa suñu àndee dama la koy wax. li nga wax naa ci bàyyi xel. soo <laughs> doomu léegi rek. da koy bañ dégg nga nangu ko yëpp dama lay wax dëgg. dañu am rendez-vous de heure bi la mu jot. Kiné gisoo li may daj Kiné ñëpp nee nañu léegi dama ñàkk fayda tout le monde dit que j'ai beaucoup changé Kiné samay vraie valeur perte naa ko ndax yow ci ay efforts yoo xamante ni nii kenn mësuma ko xàmmee topp ci ginnaaw jigéen te daaw tey mu dal ma si yow mais au moins nga mën maa mën a jàppale. s'il te li ngay wax ni dafa dugg ni jaax ni yaa ko teg sa bopp effort yooyu Jibril dama toog ak yow wax la ko au oh, effort nobuma la nga léegi yow sa effort amul feneen fu mu jëm amoo beneen porte bu ouvert boo ko mun dugal hey demal xool nen noo def Jibril man bàyyi ki ne sow ma nooyee Jibril je suis fatiguée instant bi fii nga ma yem kii mutuma xef et puis nga jóg de man ma sonn ci suis fatiguée te dama bëgg récupérer man sama toute façon xam naa nga nekk mauvaise moo tax. merci maa ngi dem mais dinaa dellu si ah. Eh, dinaa eh. Baba an Baba pourquoi mu ngi def yow yow li mu lay wax yëpp kon defu dara waraani hay dara baabu kumi tampi mona morom nani moro morom dari do tan moro nanani biyomo e eh, jibril li arrête eh, pourquoi wiimo arrête an ko kaalis taki eyi baabu maa ngi liggéey toy liggéey xaalis moo tax maa ngi liggéey baabu man guddi ak bëccëg damay fay comme góor bëgguma ngeen ñàkk dara yow ak kin yow ak maman sama rakk bi ci kër gi ba wax pourquoi jibi di la acheter dans les rues comme ça acheter wul dans les leen leen ma acheter frigo bi ma jaayaat lu tax nga ne ko fi di sonal kii di ko yunku di ko mel andi ko mi xesuma ma dama rus dama la fi di yuuxu ak yow parce que à cause de Jibril sa kii jaru ko nabu ma ko wax naa ko ko ci mbedd yi wax naa ko fu ne ci àdduna baaba nabu ma Jibril sa Jibril yow lay jënd mais gis nga Jibril xam na bu baax li nga ko wax ma xamu taa yow sa xol bi xaw ma dafa Ebola xaw ma dafa coronavirus xaw ma lan la sa xol bi def nga bàyyi Jibril mi ku ku ku nice nekk normal yor xaalis avant milliardaire ngay bugg kubu ongul yi nga xam ne ay ciseaux ay kubu ongal ngay bugg ay ciseaux koo ko an toujours xaalis pauvre yi baba an xaalis tan xaalis kay xaalis kay yow xaalis liggéey lu tax ngay liggéey du xaalis pour yow du laa ak mama bul fayaku ci kër gi bul fayaku baba li lépp man la alcool wat fontum de ani e kinni min wona giƴa nani ma duma sa moram di xam nga lu ma lay rusé nag dinaa ko def nokku la di la mbéj fii di la nokk loolu laay def baba su yeboo waaye kii dafa fexe ba ma nopp mënoo ko fexe ba ma nopp ah doo ko nopp di nga nopp ndeyam nag loolu ñuy seet waaw nag soo ko nopp dinaa ñaf sax woon jo xaar man suñu papa man xaw ma dafa dof xaw ma parfois day volé min bi sax min ki ne man man Jibril Jibril daf may dofloo quoi ay frigo ay xaalis moom xaalis la gën a papa la yaakaar ne man maa la dàqa liggéey bu dee xaalis la dinaa ko am comme yow bientôt tàngu nañ ma sax man ken me yow la a neex ci xool la dund gu neex bëggee bari doole mel foo mën ne